asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki yi ñu waa xaqu saabit ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit di ñëw ak yéen ci rendez-vous bi ñu amoon ak yéen di dalal euh, borom xam-xam bu mag di imam di euh, sëñ Ahmed Kan Kanté ñu xam ko ci senegal xam ko ci ay plateau yu bari muy taxaw di défendre lii di dëgg yàlla gi ñu am kontaan pour dalal ko tey Imam Kanté ñu ngi la nuyu di la dalal ci alxaqu saabit wal baatilu saaxiq alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk groupe alxaqu saabit maa ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen di ko jox wàccuwaayam di ko jox eh, cëram di leen baalu xaq di leen baal xaq di leen masawu coono di ñaan eh, borom bi defal leen tawfiq defal ko seen njaboot boole ñu ko ñun ñëpp di pare nag pour séq ak yéen waxtaan di ñaan sunu borom defal ñu ci tawfiq ba njëriñ bu bëree bëri mën cee eh, bàyyeekoo wasalaam. jërëjëf Imaam Kanté ñu ngi la gërëm di la sant. Eh, xam naa ca fin la waaye it ñu wax ko ba lañ koo fàtte mooy ne biñ la sante yow nga defal ñu waxtaan bi macha allah da nga ko nangu eh, ñu war a waxtaane nag ay point yu dina ak aju ci mbirum eh, suñu xarit oustaz Bamba Ndiaye ak lu aju ci wàllu téere boobu nga bind ci wàllu astronomie ak yi ñu demee ba ca lay xaw madi sax xëy na bu ko jot mayee dinañ ko waxtaane waaye suñ premier laaj ak yow mooy ne Eh, imam eh, Kanté eh, fan la gane àdduna ak li nga xam ne mooy masir dundam ci wàllu njàng ak fu muy liggéey actuellement loolu mooy suñu premier laaj ak yow. alhamdulilah <clears throat> waaw kon mbokk yi ci tënk man maa ngi juddoo Dakar wante Thiès la màggee foofu la tàmbalee aussi euh, jàng daara alquran comme euh, sénégalais yëpp ni koy faral di defee samay waajur dugal ma daara alquran wante en même temps euh, maa ngi doon jàngale tamit ci école français ci Thiès ci Madina Fall laa tàmbalee sax jàng alquran ci benn cheikh Mouride bu nekkoon foofu ñi xam nañu foofu ginnaaw ga tamit am na beneen sëriñu pëlu Kolda boo xam ni euh, sama waajur yóbbuwoon na ma ci moom may jàng alquran ci moom euh, toujours ci Thiès di ko boole toujours nag ak jàngu français bi parce que sama papa cheminot la woon di liggéey ci semaine de fer euh, noonu laa def ba ma mujj bi ma jeexalee sama école primaire ma dugg lycée bu Thiès foofu laa tàmbalee nag gën a euh, bëgg gëstu ci wàllu euh, lislaam maanaam euh, doylootuma rekk li ma jotoon a xam ci mën a fer ij jàng alquran ak julli ak yu nu mel waaye bëggoon naa gën a xóotal diine ji ci lool nag ci at yooyu mën naa wax ne bi ma tollee ci ay booru am ay 17 ans wala yu mel noonu ci la commencé gën a gëstu nag ñi nga xam ne ñoom laa dajal nag ci wàllu boobu ustaas yu ci bari eh, jamono jooju ñu ngi bokkoon ci eh, jamaatu Ibaadu Rahman ay ustaas Malick Ndiaye ay ustaas Aliou Diouf ay ustaas kër Gueye ay ustaas Sidi Khalilou Babacar Gueye ndey si dem ci yàlla gaañu na ustaas eh, Malick Ndiaye tamit ustaas Aliou Diouf tamit ustaas Aliou Diouf ci moom laa jàngee tajwid ustaas Malick Ndiaye ci moom laa doon jàngee fiqh ustaas Khalilou tafsir Babacar Gueye moo ñu doon lepp lu jëm ci affaire engagement ci l'islam euh, ba nga xam ne tamit euh, Bamba ndiay foofu la xamante ak moom dans les années quatre-vingt euh, juste ci après révolution iranienne bi la xamante ak moom gis ne daal ku amoon engagement la ba pare ma gis ne dafa maîtriser aussi bien côté arabe que côté l'islam côté culture occidentale ci laa ne ah kon ñaar yooyu ndeke mën na ànd parce que dama foogoon ni ñaar yooyu sax kenn du ko kenn du ko mën a boole

di def daawa euh, formé nañu lu bare bari ci ci wàll boobu am na bërëb yi ñu doon daje euh, mu ñuy jox ay formation ci wàll boobu moom en particulier am na ñeneen mais surtout moom moom la ñu féetale woon euh, mbiru lu jëm ci école yi ak université yi mu mu sawaroon ci lool nag bi ñu commencé ci année yooyu la gis ne ñu commencé nag di liggéey ba xalaat ne léegi sax war nañu def jàkk parce que boobu ñu ngi def ay daawa ci université bi ci couloir yi ba gis ne léegi étudiants yi bëri ñu ngi julli weeru koor bu jotee ñu julli ci couloir yi ñi naan ñu ngi daare yoon yi ñi naan fii dafa xat ñu commencé xalaat nag mbiru jàkka université bi euh, waaye ci année yooyu année blanche bi 88 man ci laa ci laa dem def naa 4 ans Maroc maa ngi woon Marrakech mais maa ngi inscrit toujours foofu Qadi Ayad euh, université science laa inscrire euh, ba pare nag di ko def ay jàng l'islam ulumu sharia ci ay shuyukh

am na prof yoo xam ne sax loolu daf leen jaaxaloon parce que dañ ne pour ñoom mbiru alquran ak yooyu lan la lan moo ko booleeg affaire environnement waaye man ci sama gëstu ak benn prof bu ma boole woon ak euh, bu ma doon woon ay documents yoo xam ni dafa am ay ulama égyptiens yu ko defoon ci environnement wan leen ni kon lii mën na nekk euh, ci loolu laa nekk ba finalement bi may soutenir sama mémoire euh, foofu ci ESE bi ma koy soutenir Rawane Mbaye xaaj Rawane Mbaye moo doon sama président de jury mom tam mu rafetlu won trop trop bob euh donc non la def ma ISE e ci la commencé aussi di liggéey ci ay ONG li ñuy wax ay développement local ma commencé ci mine di ci euh après tamit euh, euh, bi ma lolu boru booru euh, demaat naa France def fa li wax économie solidaire ñëwaat di liggéey ci affaire environnement ba tey changement climatique dugg ci ay projet ay programme musuma bëgg dugg daal ci liggéey gouvernement bi nekk fonctionnaire donc ci qui est nekk après mujj naa am sax benn poste ci OIM organisation internationale pour l'Immigration. Je ma nekkoon expert migration environnement euh, waaye terewul ba tey maa ngi ci tamit ci l'islam bi euh, mosquée université nekk naa fa imam 10 ans booru 2005 j'ai commencé décroché foofu euh, mosquée point e bu Dakar tamit woo si woon nañ ma ma fay def xutba donc sama poste bu en 2013 la woon ci OIM boobu finalement bu ma fa jógee ma consultant donc ba fi ma euh, consultant la ci wàllu environnement mais tamit polyvalent la euh damay liggéey ci lu bari dina def aussi traduction surtout euh arabe djem euh, français traduiral naa ONG islamique euh, shabab al euh bu Cheikh Ibrahima Niang temps yi sax dañu toxume point e lañu nekkoon fi traduiral naa ko ay livres yu bari ci walu l'islam donc di ko tam samay khutba ak samay bind créé naa léegi benn site Euh, mi ngoog euh, waaw lu ma gis tamit rek euh, loo xam ne doy na ma dama ci liggéey parce que am naa polyvalence ci wàll boobu écrivain laa tam maa ngi produire ay livres aussi voilà donc ci gàttal lii mooy sama jaar-jaar bu amee yeneen laaj yu ci aju ci yeneen wàll mën nañ ko gën a xóotal wasalaam jërëjëf Oustaz Imam Kanté macha allah parcours bu riche bu am solo boo xam ne lépp ay jaar-jaar yi xam-xam la ay taxawaay yoo xam ne yu am solo la e, gannaaw loolu nag suñu beneen laaj bi ñu ci toftal mooy ne le 3 juillet bi oustaz Bamba Ndiaye di ancien ministre li su onit islamia ci senegal e, ci kaw ak mbetteel dafa e, faatu Sénégal yëpp jooy ko Euh, yaakaar naa xamoon nga ko de près ou de loin euh, yaakaar naa it amoon ngeen au moins ay lien yu leen takkee woon euh, Oustaz Bamba Ndiaye moomu ci dundam yan leçon yi lañ ci mën a jariñoo ci wàllu ku ràññeeku woon lañ ci effort bi nga xam ne daane ko def jihad bi mu doon def ci wàllu syndicalisme ku doon yëngatu ci mouvement islamiste islamiste yi la su mel nii Eh, ibadur jamaatu ibadu rahman eh, moom oustaz Bamba Ndiaye moom lan nga ñu mën a wax ci eh, culture ci ak ñawam ak taxawaayam ci wàllu réew mi mais taxawaayam ci wàllu islam. waaw démb rek ndeysaan am na benn jataay bu ñu defoon ci xaritu benn bakkanam ni ko wolof di waxee muy Babacar Thiam këram ñu daje fa ak ay mbokk pour am lu ñu tàmbalee xalaat. Euh, war ko taxawal daal ngir euh, mën a feeñal bu baax a baax euh, li nga xam ne Bamba Ndiaye defal na ko lislaam jullit yi ci Sénégal ci àddina bi yëpp ak tam li mu def sax ci yeneen wàll incha allah loolu bu bu bu yembee rek dinañ ko dinañ ko feeñal ñëpp jot ci mais man mi sam bopp lu tax ma wax loolu mooy ca jotaay bu man sam bopp Eh, jàngaat naa fa lu bari ci lu ma xamul loo xam ne kumpala woon ci man ci jaar-jaaru Bamba Ndiaye parce que ñi fa toog ñëpp ku nekk am na loo séq ak moom jaar-jaar yoo am ak moom yoo xam ne ba nga ci jotee wax tuuti rek ñëpp dañoo dañoo waaru kon day wane ni effectivement eh, parcours bu riche la amoon li eh, nga li nga ci jàpp daal li ma ci mën a gën a jàpp mooy gis naa ni daal l'islam la jiitaloon ci lépp man ci tënk dama naan même bu fekkee ni lii dal doomu aadama yëpp Euh, dal na ko te dinañu dal ku nekk suñu euh, ay njuumte ci lislaam lay juume noonu laa koy tënkee dama naan lépp loo xam ni juum na ci ci lislaam lay juume bi maanaa li ma bëgg a wax je m'explique mooy que ni lu mu dugg moom njëriñu lislaam la fay seet léegi nag mën na euh, gis-gisam ak ñam ko séqal ak na mu jàppee ni noonu la ci war a duggee loolu mën na am ay tolof tolof mën na am lu ko ci bett mën na ci am ay déception wala mu am ci ay position yoo xam ni ku nekk mën nga ni xëy na mënoon na defee nii wala waxee nii loolu tamit xam nga lu yomb la daanaka boo nekku ci biir action bi wala nekkoog gaa yooyu nga xam ne ñoom seen i mbir mi ngoog day yomb loolu de l'extérieur rek nga taxaw di di wax ne waroon na def lii wala lu tax mu def lee donc yooyu léeg-léeg tey ci day baax mais ala kulli xaal gis naa ni daal lépp lu mu dugg dana ci seet intérêt l'islam kon man ba may xamanteeg moom ni ma la ko waxee dans les années quatre-vingt boobu temps gis nga daanaka lu yëngatu Sénégal ci lislaam euh, di nga ci dégg kàddu Bamba Ndiaye infatigable <clears throat> mu demoon sax Iran ñëwaat euh, di naw bu baax modèle islamique bu Iran donte woon sax moom euh, doon na wax ni lu jëm nag ci côté seen aqida chia moom ñun ay sunna lañ nekk ahlu sunna wal jamaa kon daf doon wax xale yi nañu def ndànk ci wàllu boobu mais ci modèle bi maanaam la fait que benn nit ko xam dañ naan nitu diine la feeñal xam-xam

parce que xam nga euh, sëriñ si ak euh, imaam yi ustaas yi euh, ci jamono jooju rawatina ah dañ leen waxoon rek na ngeen toog fi ngeen war a toog dégg nga fi ngeen baal na ngeen toog fi ngeen toog ngeen toog di xaar bu dara xewee état bi ñëw am lu mu leen jox waaye penc mi ak état beeg yooyu ak loi yeeg yooyu <clears throat> yéen baal ma yooyu ni ko bàyyee maanaam ñiy def politique. Euh, maanaam dëkk bi laïcité la du diine moo war a atte ci réew mi du du du du yoo xam ne dañ koy teg ci lislaam loolu moom bokk na si ñu ko doon xeex di wane ni loolu mënul nekk maanaam loolu dañ tubaab bi dañ fi ñëwoon jaay ñu doole euh, ber daara yi ak sëriñ si ak lislaam waaye euh, comme léegi moom nañ suñu bopp am indépendance dañu war a waxtaanaat moo tax lu jëm ci affaire état islamique daf ci wax a wax a wax ba sonn surtout nag révolution iranienne bi mu ñëwee mu gën a am argument da ngeen doon wax naan waaw diine na yem rek ci jàkk ji extra kii nitu diine la xome xanaa doo wax ni nitu diine la te tamit fi nekk ni fexe na ba am benn état boo xam ni ci constitution ba l'islam moo fa nekk euh, donc di wër mosquée xam na ñaata conférence la def am na conférence yoo xam ne soit moom moo koy def wala mu nekk modérateur ba su nekkoon modérateur sax day mujj moom la ñuy gën a lu kuy def conférence tellement maanaam loolu lu ko doon wane culture bu yaatu bu mu amoon thème boo indil Bamba Ndiaye gëstu na ci euh, mën na cee wax cité ay référence ci tubaab yi cité ay référence ci

koo xam ni boole niveau boobu ci arab ak ci français ba pare boole ci bañ am complexe boole ci mën a taxaw ay étudiants yu jàng philosophie ni jàng médecine ni jàng leneen ñëw julli si eh, déglu fiir bi ku nekk di la poser question ba pare bu pare étudiants yëpp wër ko ndax yéemu ci moom eh, mu am ouverture d'esprit am ouais di leen déglu eh, loolu tamit wax dëgg yàlla lu ma yéemoon la ci ci mom ak formation yi ñu doon defal dañu wane ni dañu war a occuper espace universitaire bi bu leen jàpp ne islam da ngeen war dem rek julli bu julli jotee ngeen génn yéen dem julli et cetera mais fexe leen ba étudiants yi di xam l'islam da ngeen organiser daawa bi da ngeen woo ay borom xam-xam man ak ñeneen ñu ñëw ci jàkka ja di def ay waxtaan di ñu dimbali lu ñuy defee ay programme daawa ñu commencé ñun suñu bopp nag di ubbi foofu di jàngale arab di jàngale tajwid quran ba ba commencé sax euh, di dox nationalité yi fa nekk yëpp sawar ñu jàppalante dañ fa fekk marocain yi camerounais yi euh, tchadien yi ñëpp ñuy dox commencé pour am foofu euh, jàkk am fa jàkk commencé di fa xutba ci français euh, dégg nga euh, di di di fa julli fi de weeru koor di fa def ay conférence di tax ay affiche ci université yoo xam ne dafa doon jaaxal étudiant yi xale yu jigéen commencé muuru yooyu yëpp mënoo cee génnee loxo Bamba Ndiaye donc lu jëm ci école yi jeunes yi ak université yi ci année quatre vingt cinq yooyu ba presque mën ngaa wax ne ba ci dix ans quinze ans jëm ci kaw Euh, doon na jafe nga gis ku ëpp lu muy liggéey Bamba ci wàllu jeunesse musulmane bi ci école yi ak euh, université yi euh, kon foofu laay foofu laay engagement am ci wàllu social ak yeneen yi mën naa ci ñëw ci beneen audio pour bañ a guddal audio bi. macha allah wax ji am na solo témoignage yu am solo la oustaz Bamba Ndiaye ku la xeebutoon benn plateau mais xeebutoon benn doomu aadama. Eh, en tant que ku ko bëggoo déglu ci wàllu islam eh, boo ko wooyee mu wéyu la ku xam-xamoon yaatu woon la ku loon ko tasaareel la ci université yi ndax foofu lañuy toggee nit ñi fa lañ leen formé eh, nekkutoon ku am complex ci kaw kanam lii di culture occidentaux yi te it amutoon li ñu tuddee ak extrémiste loolu it amul kon ndax mi ngi bokkoon ci jamaatu ibadu rahman bi ñu xamoon nga xam ne ñu amoon équilibre lañu naa nak ñu ñu xam tey nga xam ne eh, eh, aqida bu tar bu bu àndut ak sago lañ leen xamee tey eh, même mm, ci wàllu social boobu ngay junji boo ko mënee développé it ba tey dina am solo wante ndax ñu laajaale la ci biir loolu ndax moom bàyyi na ay téere yi mu bind wala amaat na yeneen réalisation yoo xam ne def na ko ci yeneen côté moom oustaz Bamba Ndiaye waaw loolu nga wax euh, noonu la gis nga moom d'ailleurs li ñu mën a tuddee léegi nii actuellement euh, li ñu mën a tuddee léegi wasatiya euh, en tout cas juste milieu équilibre <clears throat> daanaka lu mel noonu la yàgg di jàngale ci en tout cas formation yi ma fekkee mu ko doon def ci temps islamique yi ma doon participer ci vacances yi ak yeneen bu nawel doon jot wala gis nga yooyu yëpp ay stratégie la woon bu nawel jotoon wala ay vacances euh, dañ ci doon profité def toujours ay formation islamique parce que temps boobu lañ doon am pour mën a euh, rëcc tuuti euh, programme mu tubaab yi donc daf ci doon def ay formation yu bëree bëri di waxtaan ci mouvement islamique ci monde bi yëpp pays musulman yi ni muy doxee lu jëm ci géopolitique ak l'islam maanaam yi mel noonu nga xam ne doonoo ko Euh, orientaliste ñoo ci doon bind lu leen neex euh, <clears throat> jullit yi nga xam tam doon ñu ci bind ay ulama ci arab lañ ko doon bind donc ñu bëri ci étudiants musulmans yi <clears throat> ak élèves yi ñu woon accéder ci yooyu donc moom moo doon effectivement moo doon transmettre euh, xam-xam boobu di ko jëlee ci ulama yi bind ci wàllu islam ak politique ak monde bi ni muy doxee économie islamique yooyu yëpp moom moo ko doon feeñal di wane ni kon islam jamono du ko du ko raw voilà loolu c'est très très important moo doon sawarloo Euh, jeunes yi ñun bi ñu nekkee jeune di ñu wan ne euh, bu leen am complexe euh, gëstu leen jàng leen na ngeen xam ne islam jamono du ko raw waaye ne ku amul xam-xam jamono raw la te boobaa mën nga yow sa bopp nag di di tardeel l'islam loolu da doon insisté bu baax a baax kon noonu la meloon effectivement comme li nga wax ku ubbeeku la woon loolu loon xeeb kenn fuñ ko woo effectivement mu mu wuyu Euh, ba pare du rek sax fu ñu ko doon woo ci keppaaru l'islam bi mais euh, fu ñu ko woowoon même ci ay débat yoo xam ne ay laïc ñoo ko doon organisé dafa doon dem ba pare indi ay argument euh, <clears throat> les mardi de Daniel Brottier dafa doon dem di fa ay communiste ay laïc ay mëngook ñoo xam ne leneen lañ doon woote di toog di débattre ak ñoom kon loolu effectivement tamit doon nañu ko ñameloo ñu ñii suñu genre yi bu ñu gisee lu mel noonu ci lenn ne ah kon ñu tam nañ lu jàng rek kon danañ mën a toog ak ñi ñun tam ci défendre l'islam ci loolu tam ñun lañ commencé di dem ci université di dem ci campus yi di fa def ay conférence di ko organiser ci mosquée université bi di dem ci euh, lycée yi man mi fital na mu baax a baax ma dem ci lycée yu bari ci Dakar même sax ci région yi euh, ak université yi di def ay conférence ci ay thèmes yoo xam ne daf doon jaaxal euh, étudiants musulmans yi ñu fa doon fekk wala élèves yi ñu fa doon fekk ci wàllu islam kon yu mel noonu mu ngi mu ngi noonu daal ci ci ci lu mu doon ci lu mu doon liggéey ci wàllu bind xam nga moom bind na lu bëree bëri bind na lu bari mais li ci ëpp ci li ma xam sous forme de ay article lay nekk ay contribution moo xam ci arab ci français foofu tam lu yéeme la su bindee ci arab nga ne wax kii moom plumam bu bindee ci français tamit nga ne ah kii plumam doy na waar mais yu ci bëri ay contribution la ay articles yooyu xam naa lu jara dajale la après seet ko Euh, amaa nag ay téere yoo xam ni comme niñ ko miinee nii benn livre boo xam day jël benn sujet bu euh, xootal ko euh, bind ci ay page yu bëree bari loolu moom xaw ma ci lu bari à part benn téere boo xam ni man sax amatuma ko mësoon ko ci ay jamono temps mu nekkee ci social bi ci al muntada islam yi foog naa ak OIS bi mu nekkee ligue islamique mondiale ci wàllu ONG yooyu ci appui social foog naa temps yooyu bindoon na benn téere boo xam ne indiwoon na sax polémique parce que foog naa ci biir téere bi

yooyu yëpp suñ ko dajale woon pour def ko ay justement def ko ay téere mën na nekk ay téere yu bari bari yoo xam ni ay ay engagement am ay tukkeem ak wuyu nit ñi xam nga loolu boo ko boo ko boo ci nekkee du ànd ak nga am temps toog euh, di bind foog naa loolu moo expliqué parce que ni ma la ko waxee su bindee ci arab nga xool li mu bind mu bind ci français nga xool lu mu bind nga xam ni kii kon tëlewul bind livre kon nag léegi su ko deful rek fekk jot la woon parce que effectivement amul woon jot bi tout le temps mi ngi woon euh, nit ñi kon laa mën a wax ci wala bu social def na ci lu bëree bëri parce que déjà social euh, moom temps yi mu nekk ci OIS ak almontada al islami mais temps yooyu nekk ak soudanais yi mais c'était les premières mën nga wax euh, ONG islamique internationale yu doon ñëw Sénégal di fi liggéey ci wàllu social sinon tubaab yi ñoo fi doon def ay ONG donc arabisants yi daanaka kenn miinagul leen woon ci wàll boobu à part euh, peut-être yenn arabisants yi dem dans les pays du Golfe am ay moxsinuun yu leen jàppale ñu ñëw tabax euh, jàkka wala benn euh, école euh, dimbali ay nit yu mel noonu daal ay benn benn mais moom yore carrément nag léegi benn ONG ba pare nag boo xam ne léegi ligue islamique mondiale la maanaam dafa laa doon technicité ci gestion bi ak tam mu dem ci almuntala islam yi foofu tam dem na def ay formation ñëwaat doon ko yor ci anam boo xam ni nit ñi dañ doon wax ne ah kon nag effectivement ñun nañu jàng arab tam mën nañu yore ONG mel nii mais xam ngeen foofu tam am na benn xeex Euh, politique bu metti bu ñu xeex temps yooyu maa ngi fàttaliku parce que mu commencé di wax ne ONG islamique yi ñooy terroriste yi maa ngi fàttaliku Djiboka am na ci lu doy waar lu mu taxawee woon ñu jëlee fi Soudan yi fi nekkoon doon fi def liggéey bu am solo ci wàllu social euh, moom tamit ci biir social boobu daanaka am na ci ay jafe-jafe yu mujjee am mais li ma jàpp daal mooy jafe-jafe yu ci bari comme ni ngeen ko xamee ci Sénégal lu ci bari nit ñi euh, ginnaaw ndogalu yàlla nit seen bopp sax ñoo leen ciy dugal maanaam a gàntu nit ñi. ak bëgg ku nekk nga dimbali ko mooy dem ba di nga mujj sax xëy na jéggi fa nga war a yem wala sax jàppale nit ci loo xam ni xëy na jàpp nga ni soo ko joxee lii euh, ci alal euh, dana la ko gaaw a delloo wala nangam ak nangam yooyu foog naa mujj na ko indil ay ay ay jafe-jafe ay tolof tolof euh, sànq ma xam sax détails yëpp parce que temps yi ñu nekkoon étudiant mais doon nañ dégg daal yu mel noonu mais li mu dimbali ci ay nit ci temps yu nekkee social kenn xamul nu mu toll fu nit gisee ku sonn demal ci Bamba Ndiaye demal Ligue islamique mondiale ngay dégg. demal ci bàmmeel yaa dina la jàppale waaw am na ñu bëri ñoo xam ni tey jii bu ñu taxawoon ñoom ñëpp wax li leen jàppale ci wàllu social yaakaar naa danañ bëri lool kon euh, loolu laa mën a wax ci wàllu boobu. jërëjëf euh, Imam xam naa après audio boobu ci oustaz Bamba Ndiaye dañ ko déglu euh, wante pour njëkkalanteeg heure bi pour bañ la fee teelu yàgg ñu continuer laaj yi suñu beneen laaj bi ci toppaat mm, mooy lu aju ci wàllu calcul astronomie gis nañ ne. depuis ay at a e, Sénégal di am ay juuyaloo ci wàllu ko bis bu ñuy xoor ak bis bu ñuy xoori léeg-léeg Sénégal def ñaari koor léeg-léeg mu def sax ñetti koor yi e, ak tabaski gi dañuy juuloo ñaare léegi am ñenn ñu gis ci àdduna bi e, ne lii di calcul astronomie mën na indi solution ci xamal ñu ne weer wi feeñ na wala weer wi feeñut ñu xam ne yow bind nga ci téere ndax xisaab falak yi muy calcul astronomie ndax euh, dëppoo na ak charia waaw oustaz d'accord euh, <clears throat> waa gis nga al xisaabul falak yi euh, man kay léeg damay damay jaaxle sax bu ma déggee yenn oustaz yi yenn imaam yi ay mbokk gëstukat yu ma naw sax wàll boobu <clears throat> position bu dëgër ni ma ko tuddee bu dëgër biñ ko am ci dàq al xisaabu falaki euh daf may jaaxal parce que déjà al hisab ci bopom rek le fait que mu rot ci al qur'an rek war na tax waruñ ko meuna a dàq ci ciosanam ha ni ngi ko xamé ni ngi ko xamé wa groupe yëpp ay jànkate fi nekk fële ci suuratu suuratu yunus ha li ta'lamu adad sinin wal hisab xam nga fofu wal hisab euh bo demé euh kéro ma ngi xol rek nu mu tuddati Aboubacar al Jazairi وبين مهاد المسلم لا بد من زما ما يجلس أي سر التفاسير يمدف يمدف ما يجلس بني ويجي آية بابو دفن آية دي ما يوانني كل دي كان ورلين راو كي خم على حساب الفلكي من واو ليه لو خمني نيجي في القرآن دينغ الشمس والقمر بحسبان دينغ جنت بي أكوير بي برون بين بولين علين كي حسبان Euh, foofu tamit racine bi day indi calcul <clears throat> euh, dégg nga euh, léegi kay te alxisaab tamit ñu koy jëfandikoo ci wàllu yu bari ci diine moo xam par exemple ci miraas ku la gën a mën a calculer moo la ci gën a mën a génn tey jii sax am na ay tableau Excel yoo xam ne dañ koy def rek ci calcul ay algorithme yoo xam ne da ngay dugal ay données rek mu jox la Euh, miraas bi li nga ci soxla yëpp te gis nga bu njëkk ba ay benn benn ñoo ko doon xam ndax dañu mët maîtriser wul woon calcul te calcul kon lu am solo la euh, léegi damay faral di wax tamit ne aaya boobu alquran par exemple foofu muy wax li taalamu adada sinin wal xisaab euh, mais kon kay day wane ni kon doomu aadama mën na xam xisaab mais kon xam ko te bañ koo jëriñoo lu muy jëriñ loolu laaj la bu may laaj tout temps yàlla ne maa defee nii jant bi ak weer bi ñuy nii mel nii di def nii di def nii Euh, ngir ngeen mën ci xamee euh, dégg nga euh, xisaab ba pare ñu ne waaw mais xisaab bi buñ ko jëfandikoo te xisaab boobu muy wax xisaabu falaki la parce que affaire jant bi lay wax ak affaire weer léegi kon xisaab lu muy gën di xóot di gën di wér ñu ko war di gën mën a jëfandikoo léegi nag kon ne li ñuy faral di wax gis nga tamit waxtu julli ci xisaab lañ ko teg xisaab lañ ko teg ñëpp nangu nañ ko kenn nekkatul fii di xawal taqandeer fu mu toll ak et cetera euh, léegi nag fi problème bi nekk dëgg mooy li mbokk yi di wax euh, voilà ulama yi nga xam ne dañuy dàq jëfandikoo ko foog naa ci tënk daal pour ñoom mooy surtout euh, nusuus yi am ci ahadis yi wax ci suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ak yu mel noonu foofu nag pour man fa problème bi nekk pour pour ñoom kon xisaab falak yi même bu féké ni wërna euh te tam kenn ñemewul wax ni wérul parce que hisab hisab la ku ko xam-xam nga ko ku xamul xamoko parce que bu alcorane waxé ni ngeen mëna hisab ça veut dire que nit mëna ko xam légui nak euh ki nga xam ni euh xamul hisab euh waru ko dàq rek parce que mom xamul lu ñuy jëfëndiko hisab légui nak euh texte bobu fofu la problème bi nekk pour man lutax ñu ne duñu jëfëndiko al xisaab falaki parce que ñaar moo ci am benn bi mooy nusuus yooyu niñ ko jëlee fahma biñ ci am fiq biñ ci am foofu la problème bi nekk wane ni kon yéen sa salam dafa wax ne kon bët rek wala mottali waaye itam dañuy fàtte léeg-léeg beneen xadis boo xam ne ñëw na ci ci ci ci ci ci riwaay bi nga xam ne ni mu ñëwee naxnu ummatun ummi ummiya wala inna umma ummiya la naktub wala naxsub donc foofu xadis boobu nga xam tam ñëw na ci ci ci xisaab falaki euh, déggin ba fa am euh, foofu tam pour man fa problème bi nekk pour man xadis boobu suñ ko euh, xóotaloon ci déggin bi ni ko yenn olama yi defee dinañ ci am kon solution wane ne xadis boobu jubluwul ne umma bi du mës a war a mën a jëfandikoo alxisaab falaki mais boo demee ci ibn xajar ba muy firi xadis ba sax dafa ne yoon sasal mi ngi wax umma bi muy wax fii mooy ñamu bokkaloon jataay ca jamono jooju mën na leen ñun ñi mënuñu calculer mënuñu bind parce que bu boo ko déggeewul noonu suñu jamono ji tey julli gi mën nañu calculer mën nañu bind est-ce que da nga naan kon yeneen dafa juumoon wax ne kii déedéet kon li nga fa jublu woon mooy xisaabu falaki ci jamono jooju mënuñu ko euh, jullit yi nekkoon arab yi mënuñ ko woon am na yeneen ñu ko mënoon ay benn benn ñoo xam ni ñoo ko mënoon kon bañ lu diis Euh, te yéen sasam dañ ko yónni pour mu woote lu woyof mu ne leen kon ngeen def li ngeen xam mooy arab yi dañ doon séentu man toujours loolu laay wax même ci may bind dama naan yéen sasam boo gisee mu insister ci suumu les ruyati yi pour man boo ko seetee ba seet da gis ne du question que dafa bëgg a wax arab yi daf leen di jàngal li ñu xam parce que arab yi dañ doon mës séentu kon su insister pour wax leen léegi na ngeen euh, séentu doog euh, woor séentu doog a doog a doog a Euh, kii euh, kori pour man insistance boobu ci boppam day wane ni loolu weeru koor la la la lëkkalool maanaam bi bi ñu farataalee koor mu am ñoo xam ne dañuy yàkkamti bëgg tàmbali koor te weer feeñul wala séntuwuñu euh, mën leen ko nag léegi balaa ngeen di tàmbali koor loolu moo tax nga gis xadis yooyu yëpp daanaka ci koor lay wax te pourtant weeru julli ji du rek weeru koor fukki weer la ñu am ak ñaar kon soo jëlee li ma la wax noonu insistance yonent bi ci suumu li ruy atihi suumu boobu lu tax waxu ko ci yeneen weer yëpp naan weer bu nekk na ngeen séntu doo ko kii parce que arab yi dañ doon séntu kon du ngeen jàngal lañ doon xam te mën ko euh, boo xoolee tam al xisaabul falaki bi ni mu ñëwee ci xadis ba foofu ñëw fa ixbaar la fa ñëwee mais ñëw fa ci naax yi euh, di ko tere ni ko yenn ulama yi waxee par erreur dégg nga euh, boo jëlee tam xadis boobu ni ma la wax suumu li ruyat yi ak tafsir yi ci ñëw Ahmad Shakir dégg nga Mouhamad Ahmad Shakir nga xam ni muhaddis ci jamonoom daanaka ñi ko rawoon ci xadis est ce amoon na wala bariwul Euh, moom wax na ni gis na ni foofu am na am na am na jafe-jafe ci déggin bi et que xisaab falaki euh, war nañ ko mën a jëfandikoo ñeneen wax ko ci xarada yu wax na lu mel noonu euh, nu mu tuddati ki nga xam ne moo ci sax gën a leeral nag moom te convaincre ma lool mooy libanais bi génn na àddina fa yi no ci at yi nu mu tuddati encore Faysal Mawlawi nga xam ne moom dafa ne xisaab falaki lañ war a jëfandikoo mu jeex tàkk jaratul sax séntu bu ñu xamee Euh, iqtiraan bi kañ la rek mën nañ ko jëfandikoo xam ne weer bi commencé na kon ci tënk euh, gis naa ni amul dara ci charia lu dàq ñu jëfandikoo ak xisaab falaki ba pare nag njëriñ yi am yëpp moom kenn xamul nu mu toll ñàkk ko jëfandikoo tam li mu ñu indil ci coow ak euh, wuute gis nañ tam ni mu demee foofu laa yem ci tënk bu amee beneen laaj ci wàll boobu ma ma ma gën ko xóotal. macha allah jërëjëf imam Eh, moom day suumoo di ru'yati yi man toujours damay wax ne eh, yonent bi bi muy wax dafay wax lu tolloog ñooy ñooñ jamono yow bi nga ñëwee ci groupe bi di waxtaan waxoo français parce que ñëpp dégguñ français bon bu boobaa da ngay mel ni da ngay caaxaan parce que booy wax ak ay nit da ngay wax ak ñoom la dégg booy defal nit ñi ay fatwa danga nga koy xëcc ba mu jege pédagogie noonu la eh, boo demee islam yu bari li ñuy wax tadaruj mooy di benn benn at yi muy ñëw par ndànk-ndànk sàngara xëyut euh, araam xëyuñu santaane juri julli juróomi xëyuñu santaane koor boo ko defee yonent bi buy wax ak ñoom ñoom ci jamono boobu dana wax ne da ko xool ci xisaab falaki parce que kenn xamu ko foon bon jamono tey gis bi nga xam ne gisu jamono la tey mooy lii di xisaabul falaki mën nañ la wax ne kañ la Eh, kusuf ak xusuf di am kañ lay ñi japp wër wi ak nangam fek nangami junne at mën nañ mën nañ lako wax bon yi ci def mom eh, gatt gës gaawa wedd la te geustu la eh, te l'islam fay bañ kuy top njortu ci kuy kuy kuy fay bañ njortu ci maqama yaqin bu yaqin amé te xisaab fana ci yaqin la top ay ak ay banex Euh, ci baxsul ilmi loolu amul boo ko defee bon oustaz euh, bind nga téere lañ ñu wax ci wàllu xisaabul falak yi euh, téere boobu ndax mën nga ñu cee risimal tuuti ak ci ban làkk nga ko bind ak kañ nga ko bindoon la imam 2016 nga ko bind l'astronomie et charia léegi nag chapitre yi ci nekk ndax mën nga ñu ko tënkal tuuti waaw mbokk yi kon mi ngi noonu dama jëloon temps pour Photo euh, de couverture euh, livre bi gis nga bu de bi astronomie et charia euh, livre bi presque 300 pages man en 2016 2016. livre boobu sax bi sax mille exemplaires daanaka ñaar xaw ma ci de nekk marocain bu nekk Norvège Il xam borom xam la astronomie Euh, te tamit xam na l'islam euh, daf ma yónnee message depuis Norvège ne ma naa ko yónnee livre bi par DHL DHL laa ko mujj yónnee mu fay euh, pour jot livre bi di ci liggéey di ci liggéey liggéey ba temps yi rek yónnee na ma benn article bu mu bind ci arab di di wane ni daal position yi ma ciy défendre moom ànd na ci moom tam bind na ci ba wax ne nañu nañu nañu jëfandikoo alxisaabul falaki li ma ko xaw a meree rek nag ci ci waxin mooy que ni daanaka ñetti at yëpp. dafay faral di ma laaj di ma yónnee ay question di préciser ma koy gën a tontu di xóotal et cetera ba mu bindee article ba ba mu jeex nag tudd ma benn yoon ci article bi amul fenn fu mu war ne maa ngi waxtaan ak benn imam bu nekk Sénégal euh, am na lënt-lënt ni moo ko génnee ci sama bopp xam na ni am na lënt-lënt yu mu amoon en tant que scientifique wala ci wàllu charia bay fiq bi am na ci ay jafe-jafe yu mu amoon maa ko ci jàppale waaw loolu tam des day xaw a problème mais loolu loolu entre parenthèse koy cité foofu ci Norvège Euh, les les les scientifiques d'origine euh, non norvégienne d'origine étrangère yo xamni dañ fa am dañ fa am way quoi kon man ko bind en 2016 mais su nek ni pour batay am jataay bu ma toogee sax waxtan ko waxtan bu xoot amul parce que tay ji journalistes yi ëpp yu nek fi ci réew mi euh, sen culture islamique dafa faible français bi li gën xam euh aussi côté arabe bi sax plateau yi ma jot invité yenn oustaz yi defay émission islamique ñoom tamit xam nga ay généralité lañ gën a miin ak mais daal bu dee xóotal la ci wàllu fiq ak yenn kii tamit xaw na am ay jafe-jafe donc fi mu nekk li tubaab di wax je reste sur ma fin ba tey terewul ma koy topp ba tey di ko topp chaque année ma bindaat encore ay articles précisé encore li ma ci gën a jublu tey laa gën a am yaqin conviction que ni effectivement la xisaab falaki dara dàq ko ci charia ak mën nañ ko jëfandikoo ba 2019 bi gis nga livre bu bële boobu dama mujj wax ne lii comme livre bële 300 pages yi Euh, pour nit liir ko dala koy jaral dëgg xam-xam jaral la ko dama ko mujj euh, tënk ma tënk ko bi mooy pour un calendrier musulman perpétuel bi ma tënk ko def ko presque presque quarante pages foog na ma tënk ko ba pare def ko bilingue def ko bilingue bu ko defee léegi euh, gis nga ma jox ko Oustaz Assane Seck comme moom traducteur la moom ma gën a jekku vraiment traduction Oustaz Assane Seck dégg nga ma jox ko ko moom moo ko traduire moo def taarif bi moo ko moom ci boppam sax mu ne ma bi ma koy dama xaw a yéex ci tradition bi ndax dama doon xoolaat euh, masala bi ni nga ko ni nga ko doon lijjante kon gis nga fi nekk nii mu ngoog euh, bu mujj boobu bu bële euh, tënk naa ci vraiment gën naa insister ci wàllu fiq bi pour gën a wane ni amul dara ci ci ci fiq wala ci sharia lu ñu war a mën a jëfandikoo pour mën a dàq alxisaab alfalaki waaw am na mbokk buy laajte fu ñuy mën a amee téere bi ñaari téere yëpp Euh, téere bi nag comme ni ma ko waxee charia astronomie bi daanaka moom euh, jeex na xanaa beneen édition rek euh, lu jëm nag ci bu bëla bi bu mujj bi bu nekk bilingue bi boobu moom disponible na actuellement Dakar disponible na Dakar actuellement mosquée point bi ma nekk wala ci librairie quatre vents ku ko soxla moom soo ma ko contacté dinaa mën a fexe nga xam noo ci jotee Euh, am na tamit livre bi mu mujjee bind sax nag euh, mi ngi tudd islam science et société dinaa ko photo léegi boobu tam am na ci ay article encore ci euh, al ilmul al xisaabul falaki am na ci encore quelques articles yu ma ci def islam science et société dinaa photo léegi couverture bi chapitre yi ci charia et charia astronomie xaw na xaw na bëri tuuti mais su ma ko tënkee chapitre bu mag bu njëkk bi ma bi ma maa ngi ko tuddee le coran les astres et la science donc النجوم والنجوم والعلم ah donc foofu laay traité mais alquran dafa wax nañu jàppee falak ak kii nujum yi ak yi ci ànd yëpp ak li ci alquran wax dafa war a wane ni war nañu gëstu ba am xam-xam ci ni leen yàlla tàggatee mu nekk ay aayaat yoo xam ne dañ ko war a jàngat mën koo xam donc foofu lay traité lépp lu alquran wax ci alxisaab falaki ak euh, ahadis yi ci ñëw euh, après beneen chapitre bi maa ngi ko tuddee revue de littérature sur quinze siècles maanaam dama jël kon depuis euh, jamono yonent bi alayhi salaatu ba sunu jamono yi li ñëw yëpp ci olema yi liñ ci bind ak wuute yi ci am ci alxisaab falaki ndax mën nañ ko jëfandikoo wala déet ci ban anam et cetera yëpp laa jëlaat carrément topp ko noonu Euh, après euh, ma wane tamit nag jamono jii ñu nekk euh, ulama yi nga xam ne dañu ànd ci alxisaabul falaki yan yan dalail lañ ci lañ ci indi ak ñi nga xam ne tam ba tey ñu ngi ñu ngi wax ne waruñ koo jëfandikoo ma indi seen argument ba pare wane tamit ni argument yooyu mën nañ ko naqd mën nañ ko critiquer scientifiquement ba ba xam ne daal am na fu mu war a yem après nag léegi laa ñëwaat ci beneen chapitre boo xam ni dama fa ñëw pour wane ni euh, maqsad bi daal euh, li am solo mooy euh, woor jubluwaayu weeru koor jubluwaay bi mooy maqsad bi mooy koor mooy ci boppam nañu woor loolu maqsad bi la amaa nag léegi nu ñuy xamee weer bi loolu day dugg ci biir alwasail ci moyen lay dugg moyen nag kon nu mu gën a baaxee nu mu gën a rafetee nu mu gën a wéree rek al aslah la la la ñu di wax ñu jël ko kon waruñ ko tënk rek ci benn moyen lu dul fekk am na euh, dalil bu wér euh, buy wane ni moyen bii bii rek rek rek rek la war a jëfandikoo ci masala sàngam euh, kon kon du xaj ci audio bi mais daal kon loolu laa fa gën a traité ci fin bi nag ma ma ma def ay proposition wane nan lañ mën a fexee ba alxisaab ki ñu mën ko jëfandikoo ba ba ba di xam weer bi kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex ci weer yëpp nag pas seulement Eh, weeru koor allah jërëjëf eh, imam <laughs> léegi eh, suñu beneen laaj pour njëkk laan njëkkalanteeg waxtu wi mooy ne léeg-léeg ñu ne jant bi moo njëkk a sox weer wi bon feeñ na wante kañ la ko bët mën a gis bu ko jant bi njëkkee sox ñaata ñaata ñaata minute ci la ko bët mën a gis ak kañ lañ naan jant bi kat moo njëkk a sox weer wi waaye bët mënu koo gis télescope rek lañ ko mën a gisee parce que minutes yi dafa néew ak kañ lañ naan eh, jant bi kat moo njëkk sox waaye minutes yi dafa néew ki bët mënu koo gis bi sax mënu koo gis waxuma laa bët loolu laa bëgg explication boobu ci wàllu xisaabul falak yi loolu luñ ci wax euh, waaw am na mbokk buy laaj ci Assane Seck déedéet du Assane Seck euh, bi nekk euh, TFM Euh, Oustaz Assane Seck bi professeur d'arabe la ci lycée Diamniadio fof lay jangalé actuellement imam la aussi euh, Assane Seck euh, Mauritanie la euh voilà <clears throat> Seck la gën spécialisé wu mais traducteur la ci ligue islamique mondiale bu fi arabe di ñëw day bok souvent ci ñi ñi jël pour ñu def ay traduction donc euh bobu Assane Seck la té am sikkim mais bokk ak Assane Seck bi nekk euh, TFM bu dul loolu tamit gis nga foto naa euh, bu mujj bi kon bi ma tënkee comme waxoon naa la bële dem na ay 300 pages ba pare français kese la euh, bëri ay détails léegi bii léegi dama ko tënk gën a insister nag surtout ci wàllu fiq ci indi ci wàllu vraiment fiq wane ni gisuma dara luy dàq ilmul alxisaabul falaki ma gën ci insister Euh, ba pare tam proposé toujours benn modèle ci fin bi wax ne suñ ko defee nii mën nañu euh, weer bu nekk ñu xam kañ lay tàmbali kañ lay jeex donc gis nga chapitre yaa ngi noonu pour français bi ak arabe bi moom laa foté noonu boo ku ko ku ko ku ci teg baaraam boo ko réyélee di nga gis euh, chapitre yi ci tënk rek kon mën naa wax ne chapitre yi dama ci wax nii lu jëm ci lépp loo xam ne mooy adilla ak nusus yi nga xam ni dafa jëm ci affaire alxisaabul falaki ak niñ ko mën a déggee ma indi ay ayat alquran indi tamit ahadis ak indi tamit niñ ko mën a déggee beneen chapitre bi dama ci wax ni lu jëm ci gis ak bët ruya al basariya wane ni daal am na ay jafe-jafe yoo xam ni buñ ko yemalee ci bët rek mën na indi yooyu jafe-jafe daal ba pare troisième chapitre bi ma wane ci ne bu ñu jëfandikoo al xisaabu falaki fan lañ ko war a teg pour justifier ko maanaam lan mooy yan yan yan adilla lañ lañ mën a am ci ci fiq pour wane pour wane ni mën nañ ko jëfandikoo mashruiya mashruiyatu ñu jëfandikoo al al xisaabul falaki ak tamit yan avantage moo ci am par rapport ak ruya al basariya beneen chapitre bi maa ngi ciy wax naan euh, lan mooy argument wu addila ñi nga xam ne euh, ñoom ñi ngi dàq ba tey alxisaabul falaki ma indi ko parce que foog naa tam loolu mooy démarche scientifique euh, indi ko benn par benn bu ci nekk ma teg ko naqd ko ba pare chapitre bu mu bi nag ma indi tamit addila ñi nga xam ne ñoom dañuy wax ne alxisaab falaki masruu mën nañ ko jëfandikoo ci ci ci ci sharia ci chapitre bu mujj bi nag ma def tuddee ko méthodologie et application ma wane parce que mën nañu wax ne waa yi day wax nii rek mais li muy wax est-ce que lu mën a nekk la ma joxe ay exemple indi ay am si la wane nii lii suñ ko defee nii mën nañu effectivement di xam euh, à l'avance comme niñ koy xamee ci heure julli yi euh, ñu xam weer bu nekk kañ lay tàmbali ak euh, kañ lay jeex. waaw ci wàll boobu li ñu li ma war a njëkk a wax sax pour nit ñi jàpp ko. Euh, te xam ne euh, toll nañ foofu sax ci ci xeriñ mooy ni gis nga bu iqtiraan bi jotee maanaam euh, weer bi ak jant bi ak suuf si yam tolluwaay tegalantoo loolu ñuy wax iqtiraan bi xam nga bu ñuy wax sax weer bi xëy na maanaam ci tegaloo boobu weer bi bu commencé nag di di di di bàyyeekoo ci tegaloo boobu di jóg ñu mën koo séen ci li wax weer bi xëy na kon Euh, moo tax nit ñi dañuy jum na weer bi mi ngi fii ne weer bi kay fii la mës a nekk daf fii nekk tout le temps li ñuy wax kay mooy xëy na lu ñuy wax mooy jant bi soo ak yooyu waaye jant bi daf fi mës a nekk weer bi daf fi kon léegi euh, li nga wax nag mooy léegi toll nañ ci xarala foo xam ni bu euh, iqtiraan bi amee nga ni jant bi soow na ba ñu mën a gis weer bi daanaka ci ay minutes yu ci tegu rek tey jii am na appareil yoo xam ni euh, mën nañ koo gis moo xam benn ay caméra yu ëpp doole sax télescope euh, mën nañ ko sax photo ci ay minutes ay minutes yu ci topp ay minutes waxuma la sax nag ay waxtu mais bu dee pour gis ak bët nag bu dee pour gis ak bët kooku moom li calcul bi di wane mooy daanaka il faut nga dem ba ci gën jaa euh, fukki fukki waxtu ah gën jaa fukki waxtu ci ginnaaw bi iqtiraan bi amee kon loolu pour gis ak bët mais pour gis ak télescope wala ay caméra yu gën a puissant nee naa la comme ma la ko waxee ay minutes ay minutes yu ci topp rek euh, bu weer bi ci ay minutes rek mën nañ ko mën nañ ko photo euh, xam ne weer bi euh, xëy beneen bi tamit leneen tam lu ñu war a xam mooy ni loolu yëpp sax mooy ba tey buñ ko séentoo ak bët Euh, buñ ko bëggee séntu ak bët mais caméra yi koy séntu itam bët la bët moo fi nekk ba tey bët la rek boo xam ni caméra bi da koy dolli da koy dolli xóotal rek mais bët la ba tey nopp la ñuy gisee du làmmiñ la ñuy gisee bët la ba tey léegi nag yaakaar man ci charia nit dina mën a wéeru ci charia pour dàq caméra wala télescope kon nag su fekkee mën nañ ko gis télescope ak caméra déjà ay minutes après kon kay déjà war nañ ko mën a euh, nangu parce que bët a ko gis du ay gént du ay lépp Euh, wet diine bët gis na ko parce que télescope moo ko gis wala caméra loolu day xaw a yéeme moom laay tooñee oustaz yéen saa man leen kon tekki leen seen weeru lunette yi lunette mi yëpp tekki leen ko ñi ci bëri ci oustaz bi ñu tekkee seen i weer seen i weer foog naa ne dootuñu mën a jàng alxuraan euh, dara xanaa li ñu mokkaloo rek la ñuy defee te yooyu yëpp ay calcul la rek lunette bu nekk da ngay ñëw xool ñu defal la ay calcul wax la dix neuf sept defal la ay calcul tension gis nga dañ ñaan la bu eggee euh, tel tel yooyu te am na solo lool am na njëriñ lool Euh, heure julli tam noonu lañ koy calculer ci jant bi moom laa wax ne lu tax julli di wóolu di calculer ak jant bi waaye wóoluwuñu calculer ak weer bi te jant bi ak weer bi gis nga leen alquran di boole saa su ne euh, ñoo bokk ni ñu leen di calculer alchamsu wal wal qamaru bi xusbaan alchamsu wal qamaru bi xusbaan kon mënoo nangu ba am na mbokk boo sànq aaya boobu wa bin nujumi hum yahtadun su ma juumul waaw kon am na xam-xam mën a jëfandikoo nujum yi seen position ak seen leeraay ak yooyu pour xam loolu xam-xam la Euh, pour xam yoon bi ni ñuy gindee ko euh, léegi nag kon oustaz loolu mooy tontu bi su ko defee loolu mooy ci wàllu kon séntu moo xam ak caméra télescope wala ak bët loolu mooy ruya basariya boo xam ni voilà maintenant léegi nag calcul euh, alxisaab ki moom day permettre ñu calculer ko ba xam ni ah à la seconde dañ xam ne seconde bi ah la iqtiraan di am kon weer bu bees tàmbali na maanaam li ñuy wax cycle bi maanaam weer bi mi ngi euh, mi ngi mi ngi waaja mi ngi xëy kooku calcul bi tam day tax nga xam ko même sax balaa ngay jël télescope di xool ndax calcul bi moo la koy permettre loolu mooy njëriñu calcul d'ailleurs xam nga calculer mooy loo xam ne au lieu dem di ko topp benn par benn nga calculer ko ba xam ne euh, lay demee loolu mooy alxisaabul falaki ay algorithme la ay calcul yu ñuy def téléphone bi may wax ak yéen tey ngeen may dégg nii te ngeen nekk nekk ci àddina bi mais ay calcul moo ko moo ko moo ko def soxlawul ku nekk ñu ne la foog yow nga ñëw taxaw wax ak Kanté ci Sénégal et cetera ay calcul ay algorithme moo ko def kon tamit xisaab falaki mën na permettre par exemple soo jëlee fi mu nekk nii weer bi di ñëw ci ci ci ci weer nañ jël weer bi di ñëw nañ jël weeru tabaski bi ñuy séntu nii mais xam nañu ne tey 17 heures 30 17 heures 35 su ma jumul waa 17 heures 35 xool nga de 17 heures 35 minutes ah. ak ay secondes yu topp mais 17 heures 35 minutes boo demoon tey NASA nga dem France nga dem Italie foo dem astronome yëpp minute boobu lan lay jox mën nañ wute ci ay secondes ni ay secondes mais loolu kii la loolu taqdir la mais dañ lay jox 17 heures 35 minutes temps universel te Dakar tam dafa tolloo ak temps universel kon lundi incha allah ci 17 heures 35 minutes la iqtiraan di am ñu commencé xool nag weer bi euh, kañ lay xëy. donc lundi qui 17 h 35 calcul non le précis kon calcul dafa précis ah euh, di diqal lañ koy def kon loolu tam lu jar a xel la ci loolu rek ma doli ci ne euh, bu ñu jëlee exemple tabaski bi di dëgmal weeru zul euh, zul kon nima la waxé ni lundi moy suba inshallah kon lundi 17 h 35 minutes temps universel ak décalage horaire bi bu dee Italie le par exemple est-ce que du ngeen ci yokk 2 heures. wala une heure fu ngeen toll noonu xaw donc loolu dañ koy calculer bu dee Dakar la par exemple 17h35 la iqtiraan bi di am lundi euh, calcul li mu joxe mooy boo xoolee heure coucher soleil kon euh, jant bi mu ngi soow actuellement daanaka ay 19h45 euh, ci la jant di soow fii ci Sénégal actuellement 19h45 daanaka timis dugg léegi li ñu calculer mooy que kon suba weer bi. mom euh dina jant dina faw euh 3 minutes après euh, wèr bi dogo sow kon jant moy ñëk sow bi parce que wèr bi dina couché coucher du de la lune vers 19h48 yoy lay nek 19h48 alors que jant sow coucher du soleil ay 19h45 kon jant moy ñëk sow les problèmes bi moy que 3 minutes yoy du permettre mënuñ ko gis ci bëtt wèr bu tollu ci 3 minutes kenn mënu ko gis ci bëtt ku leen gis nako ci bëtt lolu yéme parce que bët dañ koo calculer xam mooy li may wax comme lunette mi yor mi yóbbeeg yooyu dafa loo xam ne bët foofu la gis-gisa mën a yem kon weeru trois donte woon euh, jant bee njëkk a weer bi waaye weeru trois minutes rek rek lay am ci asamaan si euh, maanaam lay lay lay lay lay toppee euh, jant bi loolu du mën a permettre ñu mën ko ñu mën ko gis ak bët lundi kon loolu tam benn xibaar la rek bu ma doon bu ma doon euh, joxe waale. jërëjëf euh, Imam Kanté xam naa ne sa waxtu wi jël nañ ko ndax euh, waxtaanu whatsapp moo mel ndax it da ngay wax ma war a déglu sa waxtaan ma joxe ma ma def question nga war ko déglu mooy indi waxtaan wi war a nekk in heure de temps def deux heures de léegi bon ñaarewul laaj yi ci def def dama koy mbëmbëstal def ko benn laaj bu defee nga seet ni nga koy tontoo. Eh, benn laaj bi mooy ne dañoo gis temps yi ci passé eh, ay nit ñoo xam ne ay ñoo am ndombo tànk lañ ci réew mi eh, ku mel ni numéro deux ci assemblée nationale dañu nekkoon CEDEAO ci wàllu teewal fa Sénégal muy wax wax yoo xam ne wax yu ñaaw la di ko jubale ci nitu politique bu ko defee mu mel ni dafa sol mbubboom koo xam ne nitu mbedd la Eh, ndax jotut ñuy seetaat ñu ne tamit naka la ñuy eh, fale suñuy njiit ndax loolu it wax dëgg yàlla numéro deux ci assemblée nationale di taxaw di wax wax waxu nitu mbedd loolu lu ñaaw la beneen laaj bi mooy ne eh, Mali suñu dëkkandoor lañ dafa am crise bu fa am ci wàllu santé ci wàllu sécurité walla waaye ci wàllu économie mu amat leneen lu ci yokkaat manifestation yi benn imam jiiti ko boo xam ne Euh, bu ñu xam la muy mouvement euh, boo xam ne euh, ki ko mooy imam Mouhamed Dicko ñi sàkku président ba na démissionné Ibrahima Boubacar Keïta te réew ma nekk réew boo xam ne dañoo am ay jafe-jafe ak wàllu ay terroriste bi ay Boko Haram ak yu ñu mel ndax crise boobu yaakaar nga noo ne mën naa déstabiliser li réew mi di Mali te mën naa jeexital ñëw ci suñum réew ñu ngi lay sant bon ñaareel laaj yooyu nga resemer ñu ko boo defee ñu tàggatoo. waaw euh, waaw wax nga dëgg wax nga dëgg kàddu yu ñaaw yooyu dafa doy sax dafa doy waar man surtout li may li ci daw sama yaram mooy li may faral di wax mooy lu tax kàddu yu ñaaw yi ñu koy jëmale ci sunu yaay yi kuy dagg saaga rek di ko jëmale ci sunu yaay yi ak li islaam wax yëpp ci yaay ak sunu yaay yi coono bi ñuy am ci ñun euh, nit buy saaga di ko jëmee sunu yaay lu doy waar la lu daw la ñaareel ba mooy que euh, ndeysaan bëri na koo xam ne yëkkati nga saaga teg ko ci yaayu jàmbur xëy na yaayam sax mu ngi ci bàmmeelam ndeysaan xëy na yaay ji sax ma nga ci bàmmeelam dund nga yëkkati saaga teg ko ci deru yaayam euh, te tamit wax yàlla gor mën naa mën comprendre nga jàppanteeg nit euh, ngeen ngeen ngeen ngeen seet nu ngeen def seen diggante waaye lu ci yoonu waay juróom lu ci yoonu njabootam donc ki nga xam ne jàppante nga ak moom ci lu mën a doon nga yemale sa sa sa coow ak sa ay ak moom Eh, waaye nag eh, mi ngoog kon nag fi muy dellu mooy foofu rek mooy ñun tamit eh, war nañ seet bu baax aussi bien ñi nga xam ni ñoo ngi politique ñoom seen bopp képp ku ci jóg di laaj réew mi di laaj nekk maire ak nekk député yow sa bopp lañu war a càmbar bu baax a baax xam sa jaar-jaar xam ndax mën nañ laa wóolu wala déet du rek koo xam ne dafa rëy laa min bëri pexe wala am alal wala digg nit ñi nangam nangam kon ñun tam war nañ seet est koo xam ni mën nañ ko wóolu parce mi ñu tam dañu Euh, lu ñu rafetlu ci ay valeur yoo xam ni ku ñu ci fekk siwul ñun loo mën a xam ak pexe yoo mën a am dañ la war a bañ a euh, fal parce que bu ñu la xasee ba fal rek nga nekk fitna ci kaw nit ñi kon dèjà ñiy def politique loolu la euh, su ko defee itam kuy def politique moom ci boppam tamit war na xam ni du ku la war a mën a àndal ngir yore réew mi du ku ne la war a mën a jox ndomb tànk même bu fekkee ni yow sa bopp mi politique wóolu nañ la ndax sa jaar-jaar tax na nit cetera et xam nga mën nañ la ba pare yow sa nga euh, jox euh, comme li wax c'est le président qui nomme au poste civil et nga nga jël koo xam ni kenn euh, defu dara sax nit ñi bu doon moom kese kenn du def dara yow sa nga jël ko jox ko xam nga problème la kon su ko defee yow sa tam la wóoloo yow tam nga fexe ba nit ñi nit ñi ne kon ku mat kilifa nga nga tamit en tout cas koo responsabilité publique mu nekk koo xam ne tamit euh, ku mat kilifa la li nga seqantee moom ci li ñuy wax nag vie privée say xarit ak yu mel noonu kooku yaa xam kon loolu la mais ku nekk daal euh, war nga yar sa bopp ba euh, di di taxawee ci réew mi loo xam ne daal day day defar loolu kay lu lu ñaaw la loolu xewoon lu ñaaw la lu ñu war a lijjanti la beneen bi ci wàllu Mali waaw Mali ala kulli xaal man damay nangu ne xam nga léeg suñu réew yi même fii Sénégal dama koy wax journaliste yi ma ne da dara day xew imaam yi noppi sëriñ si noppi ñu ne waaw sëriñ si duñu wax dara dañuy toog rek euh, état bi di leen jox moo tax dañoo lekk ba suur seen jaboot nangam nangam euh, imaam itam gis nga leen jàkka ja rek duñu wax euh, léegi bu imaam yi tamit waxee ñu ne waaw imaam yi dañu fi bëgg indi charia wala xawma lan nañ ñam seen jàkka ma ne leen ah il faut ngeen seet lu ngeen bëgg nag il faut ngeen seet lu ngeen bëgg kon imaam Dicko man jàpp naa ni citoyen la te tamit e, e, fan yi la jubawul ak IBK wala ci at yi mais bokkoon na ci ñi ko jàppale woon ba mu nekkee au comité islamique boobu temps juboo na ak IBK te gis nga boobu temps IBK ak ñi mu àndal waxuñu woon ne imam warta wax ci politique au contraire daf leen jàppale woon bu baax kon nag imam Dicko boobu moo fi nekk ba tey tey nag dafa jubóowul ak ñoom am na droit bañ a jubóog ñoom ci ni mu gisee ni li ñuy doxalee réew mi loolu ñoom waa Mali ñoo koy gën a xamal seen bopp mais euh, nangul naa ko en tant que citoyen te muy côtoyer homme politique yi des années xam seen i mbir Euh, tam ñi mu mobiliser moo lay wan ni nit ñi wóolu nañ ko homme politique yi nga xam ne ñoom seen bopp sax mënatuñu mobiliser kenn gis nga dañu daw làqu ci ginnaaw yàlla xam nag après euh, warante beeg euh, du lii lañ waxante woon du lii lañ d'accord yooyu yëpp mën da ci am mais alaa kulli xaal kon imam Dicko pour man am na droit en tant que imam malien wax ne réew mi nii laa ko gisee nii laa ko gisee te pour man lépp woote ko ci ci jàmm désobéissance civile constitution Mali mayee na ko léegi Euh, te ma ko tam mu woote yàq ak fitna ak yu mel noonu euh, kon ba fi mu toll nii eh, gisuma daal luñ ko war a mën a sikkee euh, léegi nag waa Mali ñoo war a seet nag léegi li muy wax ah mel na ni li muy wax ñu bëri nangu nañ ko parce que boo gisee li mu mobilisé ci ay nit mooy wane ni kon ñu bëree bari gis nañ ne Mali fi nekk nii war nañ ko tegaat ci ay raay yu yu yu jaar yoon. waaw xam naa donte woon sax temps bi xaw na xaw nañu dab xam naa question bi ngeen bëggoon laajte ci. mbiru boroom ñaari tur yi don naa naa ci tontu rapidement rek mooy loolu daal ñun ñu ngi koy topp daal parce que euh, man li may faral di wax rek ñoom agenda lañu am ak stratégie maanaam dañuy seet saa su ne rek euh, bu ñu gisee ni euh, baax na jekku nañu mbir yi rek ñu jéem a avancer benn pion noonu la ñuy def gis nga temps yi lay Oxfam ONG boobu dañ jékki-jékki rek dugal seen lettre boobu ba nit ñi réagir ñu ne noo du loolu lañ jublu woon et cetera et cetera kon ñoom noonu la ñuy def gis nga fi euh, fu lañ Gabon directement ci président premier ministre bi directement nationale sans débat C'est nee pays démocratique sans débat ba un ancien procureur ba fa nekkoon ndaw du Gabon tamit débat président kon gis nga gis nga euh, donc dañ koy ci ay député ci ay artistes et Sénégal tam ñun Euh, gis nga fi nekk nii xeex bu metti la ci àdduna bi yëpp ah gis nga par exemple euh, Russie ki fa nekk Poutine moom constitution bu bees bi ñu voté nii dañ ci préciser wax ne bu ñu waxee mariage mooy hétérosexuel liñ ci jublu mooy góor ak jigéen ak seen doom loolu mooy mariage loolu mooy famille mais amul amul ay góor ak góor jigéen ak jigéen mariage pour tous yu nekk France ak yeneen réewu tubaab yi gis nga kon moom tam ñu xeex ak ñoom euh, même Trump mi sax àndul ak ñoom aussi donte woon yi foofu États-Unis dañu am liberté def yenn loi yi moo kon fii tam Sénégal ñu tam ñu ngi taxaw de pied ferme président Cana euh, premier ministre Canada bi fi mujjee ñëw gis nga ñun taxaw nañ tem euh, ba président Macky Sall wax ko ni loolu duñ ko daganal fii ci Sénégal am na ñoo xam ne dañ ñuy wax bi woyof na mais ba tey daal en tout cas ci côté pénal Sénégal euh, loolu dafa aram contre nature lañ ko tuddee loolu daf ci dugg kon pour l'instant nañ jàppagum ci loolu léegi nag ñoom fi mu nekk nii fu ñuy jaar mooy lan mooy banalisation mooy dañ ko jaarale ci téléfilm yi ci bouquet yi jaarale ko ci bande dessinée yi pour xale yi di ko jaarale ci ay couleur di ko def ci ay cahier euh, ak di ko jaarale ci ay ay sketch yu ngeen xamul kon euh, ak tamit sénégalais yi tam fi nekk nii commencé produire ay théâtre ay téléfilm di bëgg a nax nañu wane ni affaire tubaab léegi ñun bokkul ak suñu culture ba pare bëgg a jàllale rek léegi ci théâtre yooyu nga xam ne ay sénégalais ñoo koy def ak ay sénégalais di fa jàllale yoo xam ni euh, mën na nekk laytaay ci mbiru borom ñaari tur yooyu kon mais ñun fi nekk nii ñu taxaw am vigilance ba xool daal chaque fois rek ñoom lu ñu bëgg fu ñu bëgg a jaar rek ñu ñu ñu koj leen fa ba pare ñu tamit nag liggéey encore pour que euh, képp ku bëgg a yore réew mi euh, te am fi ndomba tànk euh, nga xam ni lu mel noonu bëgguñ ko ci réew mi fii. jërëjëf Imaam eh, question boobu amoon solo la mais dama ko fàtte woon waaye comme ñëw nga ci rek baax na xam naa dinañ waat pour gën a laat incha allahu. wàllu bi ndax man lu ma itteel la ku ci faral di wax la e, ñu gën koo xóotal incha allah wàllu mbirum borom ñaari tur yooyu it incha allah kon waxtu wi dab nañu tey ñu bàyyi ko ba beneen yoon incha allah mooy tamit gën cee xóotaat xeex bi nga cee xeex ndégg nañ ko ak tëkk yi ñu la ci tëkk yépp ñu ngi lay sant nag bu baax a baax a baax ci turu alxaqu saabit di la jërëm ci ni nga ñu woysu ci woote bi macha allah am na solo. Eh, liggéeyal diine ji la gis nga eh, plateau yi ci al ci ci whatsapp yi ku ko xeeb xamuloo li xew ndax eh, si ndax téléphone tey mooy télévision mooy rajo da nga ciy def waxtaan di ci déglu foo toll foo toll nekk ak moom saa yoo wéetee mën ci déglu bon képp ku ci def plateau yaa ngi koy tasaare bu paree fii dañ ko tasaare ci groupe yu bare bare dinañ ci jot bon eh, plateau la bu yoo xam ne ni yu mën a tasaare lii di xoote jëmee ci yàlla li xoote jëmee ci dëgg la ñu ngi lay sant bu baax nag di lay gërëm macha allahu bu paree boo amee jot nga des fi eh, fekkee am na ñenn ñu bëgg a laaj ñu laaj la loo ci mën a tontu bu amul temps nga bàyyi sa numéro saa yoo jëmee ba am temps nga ñëw xool laaj yoo mën a tontu nga laaj ko saa yoo kiyee nga. boobu buggee retiré wu nga retiré wu ñu lay sant bu baax nag di lay gërëm jërëjëf Kanté jërëjëf jërëjëf jërëjëf ba beneen yoon incha allah. waaleykum salaam wa rahmatulah baraka waaw imaam Mouhamed Ndiaye. waaw kon euh, am na solo euh, man it wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla subhaanahu wa taala bi ma boolee ak yéen parce que xamee mooy buntu waxtaan ak buntu uxuwa ak buntu daawa ci l'islam euh, comme ni nga ko waxee dëgg la effectivement groupe yi nii day day tasaare lu bëree bëri ak tamit sax amna ay façon laaj yu ngeen laaj am solo yo xamni tay suma demone ci plateau sax ak ay journalistes yo xamni xamuñu dossier bi comme yéen ni ngeen ko xamé mu intéressé leen laaj yoy sax du feñ kon li amna solo lol euh effectivement maa leen sante ñep di leen gërëm di leen woné dal sama sama ubbeeku ak sama pare ci beneen waxtaan boo xam ni jàpp ngeen ni soxla ngeen ci sama sama xalaat inshallah taala ñu ñu programmer ko rek comme comme ni ñu defé bi di nuyu ñëpp di nuyu seen i euh, njaboot waaw kon euh, waxtu julli bi sax jot na fi mu nekk nii fii takkusaan bi kon euh, maa ngi bàyyi sama numéro naa bàyyi sama numéro su ko defee waa diggante bi su amee yeneen laaj fii ba guddi fii ba suba su amee yeneen laaj ma tontu ci après doog a doog a quitté bi maa ngi nuyu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu